président de la république ni président ci kororo pe ko barak sa nagar yu sa zoro defek ci victoire ko président de la république ci baral la république mu résidence du président de la république bi nga xam ni mooy demeure historique situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ndey pale bi xaw naa yàgg tudd mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 ba ju 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñaar fi nu xaarandi ba xam kii woote bëgg jot président de la république kooku la war doon ak fan lay woote salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam kooku ça va na nga def man la yaa xam mbay wala ya yaa xam mbay waaw ah, yaa xam mbay yaa xam lu waral sa woote ci palais ci heure bi nu tollu ni wa je peux avoir le président le président dafa jàpp il est un peu ok légui dama bëggon nga transpermettre ma mako sama message wa lolo ma fi tek a ci ya xam ok légui dal dama bëggon bu ñëw nga waxal mako wa sa way li def dàquñu ko kan li def ana Mustafa sisselo Lo yaa fi tudd doom de ya si maa ko fi tudd ya, parce que yaa fi tudd non sa si ka nga yaa xam seen yooyu ngeen nekk da ngeen koy yamale ci biti loolu xoolal yéen yàq ngeen deru père deglu ma eh, deglu ma dama bëgg nga deglu ma quoi waxal yow amoo dara loo ñu wax dañ lay yobante da ngay tey sa gemeñ ba ñu pare nga soog a wax waaw waxal ok ok wala du ok bay bay yow ya xam yow yaay kan yow no xolal yow tu te prends pour qui yow xolal yow standard tu te prends pour qui yow xala xamo yow deglu ma deglu ma bay bay yow standard nga yemal ci tey kuddu ñu rof la ci gayet xam nga li ma la bëgg wax mooy loolu muy def dàquñu ko. waaw mais standardiste la mais du ma dunguru lu nekk dañ koy def dans la la règle de l'art. man standardiste naa ko mais du ma dunguru du ma dunguru. non yooyu yoon nekku ci. ay ah. dunguru ak affaire yooyu ñun fu ñu nekk fu ne suñu xam-xam moo ñu fa teg ak suñuy diplôme. waaw wala seen ay mën a xastaateeg mën a saaga. non non man déggoo ma ma saaga déggoo ma saaga kenn waaw ñun nag lu ne yàq nañ ñu ko te loolu la ñuy def dàquñu ko quoi. mën nañ ko mën nañ ko def comme ñoom may xoolal duñ leen topp parce que Macky Sall au moins am na fu ñu ko teg te jox nañ ko cër mais bu dee wuyu ak band yi ak jaay affaire yooyu ñun dàquñu ko te fu ñu woow bu ñu neexee mën nañ ko faa wuyu te dara du ci mujj lay tooy ci moom lay jóge yaa ngi dëgg. léegi bu président ñëwee ne ko nag moom lañ ciy seet na woo wax ak moom arrêté saaga yi sinon boo moytuwul waaye nag moom am na lu ko doy parce que génn nañ ko ca parti bi loolu na moo naqir xolam. yaa lan moo ciy topp. loolu sa yéene nga wax saa xoolal man am ma dara lu may wax ak yow. baax na kon couper sa téléphone. non su may couper du yow yaa ma koy wax parce que téléphone boobu gënul sa poche yow standard nga yamal foofu saay dama lay wax non xoolal déglu ma déglu ma dama bëgg nga yem ci kudd ñu raf la ci gayit ma waaw saaga nag kenn dàquñu ko ñun bu ñu neexee kii xool. saa xoolal dama lay wax rek. yaa xam waaw. léegi votre correspondant na peut être pour le moment veuillez après ultérieurement. man nga yow man nga loo fi mën loo fi yaa xam. yaa koy yëg point coupé naa la. man ngay coupé.